dóorante waa nag on en vient à à à Benno doo bàyyi Benno man du ma porte-parole Benno non vous mais vous êtes membre de de Benno yéen vous confirmez Amadou Ba mooy seen candidat ba ah, waaw ah moom moom moom en tout cas instance yi ma dégg déggagum loolu la man sama parti c'est vrai que question boobu moo loolu la ñu wax parce qu'on n'a pas on a fait un congrès d'investiture le parti socialiste. et vous maintenez votre position. Euh, je, euh, qu'est-ce qui le Parce que c'est le candidat de Benno. Nous, on a investi le candidat de Benno, au-delà de sa personne. Et nous, nous, comme je vous dis, allez visiter nos sorties. Nous, on était en plein dans le pré En plein. Je pourrais te partager tout à l'heure des, des, vidéos qui te montrent tout notre matériel électoral fait, posé. On était disposé aller et préparé. Mais grognement yi am ci ci majorité bi euh, surtout euh, au sein du parti présidentiel euh, nan ngeen koy à l'étape de de de de Benno. les grondements en interne. oui ah soxna si yooyu xanaa ci biir kër sax day am problème. mais nag euh, loolu moo tax on on fait toujours appel à la démocratie la démocratie c'est le fait majoritaire man ànd naa ci ay décisions yoo xam ne personnellement c'était pas mes décisions ndax moom parti ailleurs mais bi ñu demee ba wañ ma loxo ne décision majoritaire bi lii la mais dama ci tënku parce que loolu mooy bokk ci groupe te man noonu lañ ma yare aussi loolu mooy bokk ci ab groupe. du càgg nii da ngay ne man li ma xalaat wala zéro loolu boo ko waxee soit comme les sociétés là unipersonnelles nga demal sa bopp mais doo bokk ci kuréel maintenant la décision majoritaire c'est exprimé quand euh, kilifa ànd ci ndaw ñi ànd ci jigéen ñi ànd ci ni nii la demee nii lañ koy defee mais loolu moo doon d'abord suñu sens su gagné parce que dañ jàppoon ni bu ñu deful loolu li ñu def ci yeneen élection yi musiba la il faut ñu bokk joxante loxo ànd pour dem yàlla may ñu ndam yàlla nag du fekk ñoo xam ne dañoo xol yi dara new fa wala lu bon a ci ne mu la di may ndama man loolu góomoo kon ñun loolu ñu jàppoon moo waral ñun PS euh, bu ñu defee suñu procédure ba pare def suñu congrès investir candidat bi kon loolu logique boobu lañu nekk lii lu bees la